waaw jërëjëf Ousmane Lo ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la nuyu di nuyu képp koo xam ni yaa ngi déglu African Time ci États-Unis Amérique di nuyu Dame Babou di nuyu bépp sénégalais bu fa nekk ak sénégalais di leen ndokkeel di leen félicité di leen ñaanal yàlla suñu borom taxawu leen. di wax rek ni xam nga ne dimanche bii génn amoon nañu la xam di wax na ni xam nga samedi bii génn amoon nañu làmb ju mag joo xam ni ji. lamb ju am solo la joo xam ni promoteur bu ñuy wax Fallou Ndiaye moo ko tëgg mu nekkan bés boo xam ni bii ci diggante Reug Reug ak ki nga xam ni kii mooy Bébé Saloum lamb la joo xam ni tëkkale bi yàggoon na ndax xam ngeen ne Bébé Saloum def na onze combats yoo xam ni départam ñu bari nañoo wax ne roi des arènes dana tàbbi ci loxoom waaye olof Ndiaye dafay wax ni doomi mbër jàngil bëre dees na la ñam Reug Reug nag am na ci lu ci feeñ Ousmane Lo. Reug Reug nit ñi dañu yaakaar ni ab séeréer la ma nga dëkk Jonwaar wala Diofior waaye Reug Reug góor gi Modou Kan Caaro yi ma daje woon ak Cheikh Mbamba Sow moo jur baayam ne damaa doon bër gi ci bàyyi doon na ko ci ndey baayam ak papa Kan Caaro yi mu dóor Mbaye Guèye mu daanu dóor Robert mu daanu dóor Moussa Diame mu daanu dóor Boy Romer mu daanu dóor ki nga xam ne kii mooy maam góor gi yaay dóor ki nga xam ne kii mooy dubal lees mi dëpp kooku moo jur moo mook baayam ñoo bokk ndey ak baay muy Reug Reug Reug Reug nag góor gi Modou Kan bàyyam Abdourahmane Ndiaye faran daje woon na ak moom góor gi Abdourahmane Ndiaye faran daje woon na ak maamam maami Reug Reug mu nekkan combat boo xam ne bii lébu yi dañoo taxawoon ci diggante ñaari lépp yi mu nekkan rajo bu mag Reug Reug nag lépp loo xam ne lii teg nañ ko ci nag ci Sénégal yàlla suñu borom jox na ko ko paquet ci seng bu ñu teg ci bëri simple yàlla jox na ko ko lépp lu ñu teg ci ci ci ay drapeau nee na ma xamatuma ñaata drapeau laa am xamatuma ñaata nag laa am xamatuma ñaata bëy laa am xamatuma ñaata xar laa am ni ma papa xaadim mën naa mu ni ma léegi jot na ma ñëw ci bëre dóor bi bëre dóor bi nag samedi passé bi mu daanee Bébé Saloum ci la def onze combats yoo xam ni onze yi moo da moo daan dix yi onzième bi moo amul verdict ndax dafa amoon coow ndax dañu dañoo ànd daanu ci saaku yi Bébé Saloum nag moo ko sut moo ko gën a diis waaye Reug Reug daf kopp doole ba pare gën koo bënn bëre parce que arbitre dafa suufle Reug Reug ne mag sooy bëre moom da nga koy attaqué woon ko ne maa ci maa fi ñeex xeexam Bébé Saloum dóor ko ay arrêt gauche droite Bébé Saloum esquive Reug Reug googu jàpp ko mu defen da ko wér ñaan mu fiile ko wër ko ndomb dóor ko neuf ku na ko dóor ci manteau gauche maap ko mu jaaxaan loolu mooy combat bi nga xam ne moo amoon ci diggante Reug Reug ak Bébé Saloum dimanche nag bu ko suñu borom dogalee ñoo ngi jëm nag stade Demba Diop mu nekk événement historique waaye nekk loo xam ni promoteurs yi ñu ngi ruumandaat ci suuf ndax loolu du yàq làmb ji ndax dañu ni pour promoteurs yi nga xam ni ñoom ñooy tëgg bëri simple tiit nañu parce que dañ ne promoteurs yi daa tëgg bëri dóor yàq nañ bëri dóor bu bëri dóor amatul mbër amatul promoteur doxatul ñu bëgg a ñëw yàq bëri simple bi ndax li Nicolas dafa def lu kenn mës ta def mooy teg fukki million ci bëri simple te stade Demba Diop loolu mooy li nga xam ne lii moom la Luc Nicolas def mooy combat bi nga xam ni mooy combat bu njëkk boobu Luc Nicolas muy journée bu mu def ci at mi bi di ko xaar nag ñu ngay fay séentu lu mag juróom-ñaari téeméeri mbër waaye ñëpp dañoo d'accord ci ni bu fekkee Reug Reug takk na ngemb moom mooy yóbbu dix millions yi ñu ngi wax nag diggante Reug Reug ak caaka ñu ngi wax diggante Reug Reug ak nga xam ni kii mooy xale boobu nga xam ni mooy ñu ngi wax diggante Reug Reug ak caaka ne daal combat la boo xam ne bii jàpp nañu ne ci juróom-ñaar téeméeri mbër yi bu ñu demee ba àgg ci final Reug Reug lu mën a xew ci àddina Reug Reug mooy finalu waaye nag Fall def maa waxal ni ma làmb doog maas dabante la combat yi ci des nag Ousmane Lo Ndiaw des na xam ni ndax diggante Bombardier ak Gris Bordeaux dañoo wax 4 avril waaye demaguñu CNG combat bi nga xam ne diggante Papa Sow ak ki nga xam ni kii mooy Ama Baldé wax nañu ne combat bi taxaw na waaye avance demagul CNG jàppaguñu dat kon loolu xel teey na fi mu ni Ousmane Lo waxoon naa la it ne la jàpp naa ne dañ du ñàkk mbër yoo xam ne avance bañ leen jox te seeni kër lañ leen ko joxe demul CNG loola mën naa doon seen muur ndax reliquat cinquante millions ak soixante millions cent millions te amoo sponsor bu wóor loolu dafa dalal xel léegi dama lay bàyyi Ousmane Lo nga samp say laaj.
waaw ngan kay li ma doon laaj mooy face to face bi nga xam ne mooy am tey ci diggante diggante Lac 2 ak Modou Lo Boy Niang ak kii nu muy demee.
waaw loolu combat la yoo xam ni yii Lac de Guiers dafa bëre woon ak ki nga xam ne mooy Modou Lo ñu niil Boy Niang nag ak ki nga xam ni kii mooy guy gi allo.
waaw maa ngi dégg.
Boy Niang nag ak guy gi combat la boo xam ni combat xele ak mag la guy gi daanan na ko Boy Niang dafay ñaan revanche mu nekk loo xam ni lii ñu ngi xaar ne ñaari combat yooyu dana neex ndax wóor nañu ne Boy Niang musta niil te it Lac de Guiers 2 bu niilee ak Modou Lo bu niilee ak Modou Lo ci ki nga xam ni kii moo daan Balla Gaye numéro 2 di Eumeu Sène Modou Lo daan ko jëli boo xam ni bii dootu ko histoire da ko bind loolu jàpp nañ ne dana nekk loo xam ni lii làmb ji war a neex la bu dammul làmb nag dana dugg ba ci biir Ousmane Lo mu damm ni làmb di damme mooy Ousmane Lo xam nga làmb dafa nekk loo xam ni lii dafa bari ay gàllankoor yu ci nekk yu dul jeex waaw liñ ci liñ ci séent daal mooy làmb la joo xam ni ji yaakaar nañu ni bu fekkente ni bii arbitre la topp diggante Lac de Guiers ak Modou Lo bi yoon du niil parce que su niilee jàpp naa ne dootuñu bëre parce que niil xewe na ci làmb ji parce que Lac de Guiers 2 nag xam nga ne ki ci gars yi doon wóoy xam nga Lac de Guiers 2 feebar yëpp dañoo tege moom mu tànn siti te sans bàyyi ne la siti boru toppam sitee ko gën a garaaw te yëkkiri toppam siti la woon te ba ko ba ko Lac de Guiers fekk daf ko sëkkatal fa mu ko jàpp da koo jaaxaanal kon Yékini ñaari soose yi ñoo ko daan dem dellu Lac de Guiers war a bëri ak Modou Lo mu nekk combat bu leer bu riis combat guy gi nag ak ki nga xam ne kii mooy Boy Niang mooy combat stratégie ndax guy gi xam nga bëri na fi ak sos ay baaraamam damm waaw mu nekk combat boo xam ne bii combat bu nit ñi amoon ne bëri bu neex dana ca feeñ parce que da doon ndaama ak njoor di poids lourd ak poids léger waaye gis nga combat ba na mujjee waaye wóor na ma ne Boy Niang moom képp koo xam ne yàlla suñu borom boole na ak moom la tax combat bay nii di caw lay doon waaye du doon Boy Niang ndax mbër la moo xam ni dana dellu ginnaaw demee boor ndax dafay sàcc Boy Niang mbërëm sàcc la ndax bàyyam noonu la daa sàcc bëree déegoon ñu ko jur mbër la moo xam ni daf daa léew toog yow ñu toj jëli ko ci géew ci saaku yu juróomi yoon waaye bu këfee sa tànk nga jaaxaan Boy Niang mi nga xam ne mooy nijaay mi tam kenn ku ne xam na ne bu arbitre masa suulee sa digganteeg moom dalay fetal fetal yu kenn musul gis ci àddina kenn daw mbaa kenn daanu donc combat bu neex la ci festifesti boobu yaakaar naa ni bu fekkente ni bii teg nañ ko ci yoon danañ mën a seetaan combat yu neex ba ndeeg dogal yàlla waaye li ma wóor daal mooy Lac de Guiers moom boo waree ci aw ñey ba wàcc ko loo war a day tut ci yow yaakaar naa ndax mënoo daan ñi ki ni jikki di nii ak Modou Lo loolu mën tam ñaara mën am nga daan Modou Lo wala Modou Lo daan la
jërëjëf waa léegi li may na tëjee mooy fi mu nekk nii wax dëgg yàlla yaram daw na yaram daw na ci fii nga xam ne fii la làmb toll waxtu wi bu mosaan jot combat yi dañuy dàqante kenn ku nekk yaa ngi wut sa sa sa bis boo xam ne bii yaa ngi grand combat yeeg lépp fi nekk te ba léegi dara xewul làmb fu mu jëm làmb daal Ousmane Lo bu fekkee caaxaan dem na dëgg des wax naa la ko yaa deux cent daam baabu wax na la ko yaa deux cent ma ne la beneen promoteur mooy am parce que poom xaalis moo dul yàgg Ousmane Lo promoteur yi ñoo rey seen bopp ñoo yàq lamb ji parce que ñoo doon tëgg lambi prestige gis nga sport ku ci dugal prestige da nga ko rëccu wax naa ne ñoom ñoo xëccoo për mbër yi dema dema dem ba nga xam ne bii lamb ji saturé nu ñu yokk kase yi ba mbër mën a tëbëre cinquante millions mbër mën tëbëre cinq millions te danaa la wax dara Ousmane Lo amu ci mel ni mbër moo xam ne tey da mbër yi nañ tëgg seen bopp mbër yi am nañu ay baay am nañu ay nijaay mbër moon na la sa baay tëgg mbañ moo ko la tëggal sa bopp mbañ nga xam ni kon ñoom xam nañ ne amul mel ni mbër ci àddina muy jaay des millions ci biir làmb barke Sëriñ Bamba laa ko laa la wax maa lay wax ne amul mel ni mbër muy jaay ñaar fukki millions ci ay biir làmb amul wax naa ne làmb ji gën a riis Sénégal ëpp tapage ëpp coow campagne ba gën a riis mu nekkan combat jànq muy diggante Yékini ak Balla Gaye combat boobu trente millions lañ jaay ci biir te fay nañ mbëri presque trois cent millions wala quatre cent millions ñaari mbër yi combat beneen bi ko gën a rëy moo doon diggante Yékini ak Bombardier bu Mbuur kooku Petit Mbay bi ko tëggan ci la demee exil ba léegi kon dama lay wax ne la promoteur yi ne lu waaye leen di say loxo lay nàcc saa maam ne déet bu nàccee ci loxom bi sax koy bokkam donc nag loolu moo tax mbër yi promoteurs yi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ci arène Adrien Senghor di tëgg làmb làmbi mbapat ñooñu tiit nañu parce que dañu ne ñee yàq nañ bee ñooy yàq bii parce que xam nga nag dix millions ci làmb mbapat dafa garaaw Ousmane Lo donc lii nag marqué na époque am ci làmb def na ci lu rëy waaye ñoom promoteur yooyu làmb jaa ngi yàqoo ci diggante Ligue Gaston Petit Mbaye Aziz Ndiaye yaa ngi dégg ñooñu ci ñoom la yàqoo parce que ñoo dem ba doon fay mbër deux cent millions kenn ku nekk am sa mbër bëgg mbër ma di la bëleen saison ba saison tëj nga xam da ngay jël juróomi avance jox ko mbër loolu moo indi tey rupture am fi mu ni nii may wax amul benn promoteur bu la mën a garanti ne làmb sàngam dana am man maa la ko wax de promoteur yi fi mu dañuy dañuy wel mi wal ma rek waaye amul ci benn promoteur boo xam ne bii mën naa wax ne combat bii dana taxawi nii wala dana taxawi nii man loolu maa la ko wax Ousmane Lo kon Ousmane ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant combat bi nga xam ni itam Ousmane Lo mooy diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux la ma la ca waxan keroog dama koy gën a dëggal ki nga xam ni mooy Gris Bordeaux Fass wax na ñoom moom nee nañu ko balaa ngaa mën a sëgg bëre dañuy pare ci yow ci wàllu physique ci wàllu doole ci wàllu mystique ci wàllu moral ci wàllu wér ci wàllu lépp loo xam ne lii dana tax bu sëggee ak ki nga xam ni kii mooy Balla Gaye numéro 2 ñu am ci yaakaar. loolu nag waa Fass ñu ngi ciy bëre ak moom ci xel waaye daal li ma la xamal mooy ña bi ci des itam mooy promoteur bu tëgg lamb bi cinquante millions moom amatul Sénégal léegi daal mbër muy xaar cinquante millions bu yóbbu nga tekki sa ngemb mbër muy xaar cent millions bu yóbbu nga tekki sa ngemb Ousmane Lo Khadim Samb doon jokkoo ak yéen fii ci Dakar Sénégal pour African Time am sori